yàlla la muy def sotti na te la mu dul def sotti na ku yebbu xam ne noppi na ci lu mu def ak lu ba yàlla la muy def sotti na te la mu dul def sotti na ku yebbu xam ne noppi na ci lu mu def ak lu ba loo xam ne atteen ak amam ku bëgg ak amam mu am ku bëgguluk amam mu am ku ebu atte ba yow mi di sakku addina yaa gën a réere addina nde doonte xam nga addina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkati ko koo fi amit ñàkkati ko foo fi amit ñàkkati ko lu mata bëgg néew fi ndegam Souleymane fi jóg koo mën a gis dana fi jóg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la siyaara di la ndokkeel di la masawu coono ci liggéey bii nga xam ne. cëy sëñ Tuba moom la la cëy sëñ Tuba. Cheikh nga jiite ko ñu agsi ba fii muy liggéey bu mucc ayib. ñu ngi la ci masawu coono te di la ci jaajëfal di nuyu it ñi fi teew ñëpp di nuyu sëriñ Cheikh Khadim Mbacke mu Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne ñëw na teew fi eh, jataay bii nga ñëw nag yàlla na yàgg yàlla nañ ko teewee déwén eh, suñ koy tënk mooy dangay ngay jëwri borom liggéey bi yor kàddoom ki nga xam ne moom la ñuy liggéeyal di sëriñ bi di Serigne Touba kiko finakal fi nekkal di jëwrindi borom liggey bi so teewee fi ngir seere kaddu yi si ñaafa mi ngi ñëw la mu agsi ngir jaajeufal suñu mbokk talib yi nga xam ñom lañu andal liggey bi ci biir daayira Muxaddamatul khidma liggey bi nak dafa séddalikoo ay ay pàcc yu bëree bëree bëri yu yaatu ay mbolo yu beri bëri yi nekk ci mo xam danaka lim bi mu ne su koo xam ana ëpp na jooni nit ñu ay commission ay commission yu bari ci biir am na ñoo xam ne jubbanti sàppe yi jëm ci barab bi rek la ñu am ñoo xam ne bale setal la ñu liggéeyee am ñoo xam ne di wër penc mi ak dimbale nit ñi ci tere leen tamit ak digal leen li nga xam ne moo moo war ci worma ji am na ñoo xam ne faj ak dimbale nit ñi wéradi la ñuy liggéey muy mbooloo mu dul jeex am na ñoo xam ne sécurité la ñuy liggéeyee ci biir moo xam civil yi ci muxadimatul xidma ak takk der yi am ñoo xam ne dimbale nit ñi nga xam ne dañuy daanu ak ami jafe-jafe moo xam sappoor la moo xam croix rouge la moo xam yu ni demee waaye ci biir loolu it mu ànd ak liggéeyu commission culturelle bu yaatu mooy exposition bi ñu la doon leeral léegi nga xam ne am na ay activités culturelles yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci biir màggal gi muy wane fi lépp loo xam ne moo aju ci jaar-jaari jumaa ji waaye ren jii nga boole woon ñu ak association bi nga xam ne dañuy li dañuy yëngu ci wane eh, ñi nga xam ne dañoo bind ci sëriñ bi ci te sëriñ xaadim Seex Xaadim Muntaxa mii di seen jëwriñ ak sëriñ bàyyiloo ñu àndoon ak ñun tamit ñëw ci biir exposition bi ñoom it def fi liggéey bu am solo ay professeur université yu bëri teew nañ fi biñ koy ubbi sëñ Seex Xaadim mi moo ñëwoon ubbi ko moo sëriñ Afia ñu def fi ay panel yu yaatu ay waxtaan yu diine yoo xam ne gaaral nañ fi téere yu bëri gëstukat yi ak ñi nga xam ne xam-xam ñor na leen ñu bëri ñëw nañ fi ngir gëstu loolu su ko defee nag ci biir loolu ak liggéey bi ni mu doon doxee ak yi nga xam ne tënk nañ ko ci dañuy jox kàddu gi suñ suñu Abdou bu Bousso Muxtaar mu leeral la lépp ni mu demee su ko defee suñ noppee suñ Seex Xaadim wala euh, bàyyiloo kenn dana leeral ñoom it liggéey bi ñu doon def fii ak ni demee lépp kon su ko defee suñu Abdou Lahad ñu jox la kàddu gi. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la génn di la ci ndokkeel it. di ci sargal bu baax itam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne jiite nga ko ba ñu egsi ci tëjtal yi di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim ndam yi di yokk yokk yokk rek tey gën a jëm kanam ni mu nu masa a mel rek mel na nu ko gën ren waaye yal na la suñu borom taqalee ki ndam la taqoog moom ba faw di nuyu Serigne Cheikh Ahmadul Khadim mii toog di ko ziyaara bu baax di nuyu ak a ziyaara bokki taalibe yépp sëriñ bi ñu maa ngi lay nuyu ci turu daa'irat Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afia sëriñ Afia di yëkkati kàddoom tàmbalee am nuyoom ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu boroom mi nga xam ne dara tawu ko mu bàyyil na ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu li mbooleem ay yéeneem lépp lu mu naal te naalal ko sëriñ tubaab mu sottal ko ci loxoom te nu ànd kook moom di la nuyu bu baax di la ziyaara bu baax di la ñaanal it suñu bàyyi la fi lu yag yag yàgg nga yag a Serigne Touba wi te yag ci am ay ndam di la wax ne rek daairatu muqaddamatul khidma mi ngi ni tay di la wax ne na taxawaay yi nga xamne ne daan nañ ko taxaw ci jumaa ji ci magal defé wat nañ ko nañ ko daan defé andati ko itam ak ñañ ko daan andal ba am sax ñu ci li ko ren lu jitu magal gi ñew dañ ko ñëk wajal ni ñu ko waajale mooy dañoo tënk mbooleem li nga xam ne mooy liggéey bi ni mu war a doxe ak niñ jàpp ne suñ ko ni defee dana yomb ci taalibe yi yomb ci ñu koy def te du am benn jafe-jafe ñu tàggat ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey te nekk ci biir dëkk bi génn itam dem ci dëkk yi nga xam ne mbooloo yi nga gis tey gii bàyyi koo nañ fa war a ñëw Touba ñu defal leen foofee ñoom it formation bu mel ne bi ñu defal ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ba ñoom ñëpp ñu àndandoo euh, yeewu ci liggéey bi ak doxin wi man koo ci itam xam niñ koy doxe ba kenn ku nekk bu dajeek moroomam fii day mel ne ñoo mas a dëkk ñoo mas a ànd di liggéey loola sëriñ bi moo tax liggéey nañu lit bi weeru safar wi teraw ba léegi ñu ngi ci jumaa ji di liggéey waaye bi màggal gi desee juróomi fan nag la mbooloo yi tàmbalee ñëw ànd ak ñun liggéey bi waaye liggéey nañ ko ba fii ñuy egsee alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom dogal na benn werante amu ci benn jafe-jafe amu ci genn juyoo itam amul ci liggéey bi te loolu tàggatu gi nga xam ne tàggatu tàggati nañ leen ko te lajnatu saxaafa bi nga xam ne Abdul Ahad mii moo ko ak lajnatu tanzim bi nga xam ne sëriñ Fallu Mbàkke ñoo ko moo ko moo ko moo ko jiite ñoom ñaar ñoo ko seqoon bokki taalibe yi ba ñoom ñëpp ñu bokk wenn yoon boo xam ne ci la ñuy liggéeyee loolu bokk na ci li nga xam ne moo jàppandal liggéey bi liggéey bi nag sëriñ bi ni ñu la ko waxee ñi ngi ko ànd ak mbooloom ay daayira yu bari yoo xam ne dañoo baaxoo di ànd ak daayiratu muxaddamatul xidma ci liggéey bi bokk na ca daayiratu muxaddamatul xidma bu Louga sëriñ Xaadim Taysiir jiite ko bokk na ci daayiratu muxaddamatul xidma bu Dakar sëriñ a Saw jiite ko ilhaamul latiful xabiir sëriñ Asan yàdd ak Baay Abdu jiite ko lamp Fall sécurité sëriñ Ibrahima Seen jiite ko xidmatul xadim bu waa Eaux et sëriñ Babacar jiite ko Safinatul Aman sëriñ Modou Guèye jiite ko xidmatul Masalik sëriñ Tayba Ndiaye jiite ko xidmatul Masalik beneen sëriñ Bamba Sall jiite ko daayiratul Istiqaama sëriñ Maam Thierno Thiam wakaana xaqan sëriñ Masamba caam ba Diop Fathul Xafaar sëriñ Seyar Ndiaye ànd ko itam ak docteur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci infirmerie bi nga xam ne moo fi nekk waaye foofu nag sëriñ bi docteur yooyu am na ñu ngi lay seereel seenu taxawaay ndax ku ne xam ne ne màggal gi barab bi ni muy xate day metti lool rawatina nag su dajee ak ajjuma ajjuma yi démb ji dey képp ku yàlla dogal nga jaar fi mujj nga yërëm leen lool ndax coono yi nga xam ne jànkonte nañ ko ci nit ñi ndax nit ñi bu ñuy ñëw dañuy indaale seenu xër te ñëw ci bari ba ñuy ñëw ànduñu woon ak wér moo tax ñu bari daanu nañ fi démb waaye yàlla defal na leen sutura ak seenu xerañte ak seenu njàmbaar ba lépp dellu si ci jàmm kon nag sëriñ bi nañ leen ñaanal bu baax ñu suñu borom yokku leen te defal leen tawfiq foofu it danañ ci profité gërëm ci docteur Ndeye Maguette Diop mi nga xam ne moo jiite euh, district sanitaire bi te nga xam ne lépp lu nos lu nosub liggéey bi ci loxoom la ko la la la la tegee naka noonu professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ni sëriñ Mountakha moo nu ko boole moo nu boole woon ak moom jaarale ko ci sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Moustapha Bassirou moom it diiru ñetti at yi at mu ne lépp lu ñu soxla ci liggéey bu jëm ci wàll googu daf cay taxaw taxawaay bu mat sëkk bu rafet boo xam ne taxawaay mënu koo féete kaw indi na fi lu bare bare bare bare ci ay jumtukaay yi faj ak ay garab yoo xam ne tax na docteur yii seenu liggéey gën a yomb gën a jàpp ni bari na loo xam ne suñ ko doon wuti man a man buñ ko buñ doon xaar ngir mën koo am ca hôpital yi rek lañ koy mën a amee waaye andil na leen ko ba mu jege leen ba nga xam ne ku accès ci ñoom la ca war lépp danañ ko man ba bu jógee buy dem du am ben jafé jafé loolu dimbali na len ba sun borom defal na len sutura defal len tawfiq ba ñi ñu faj ñëpp suñu borom def na ci tawfiq kon nak serigne bi loolu mëne ci lu ko ñak a waye ñu lay seereel it go xamné ñu ngi koy sant mbolo mi lekkale pharmacie département bi ñom it ñu am taxaway lañu ci infirmerie bobu ci walu garab di topoto garab yi fi am ñu ñew di xol yi nga xamné jeexna ñu di dindi yi nga xamné seen dat jeexna ñu dindi ko yi nga xamné warna am ñu taxaw ba mu am na mu war a amee ba lépp di jàppandi ajjuma june mbooloo mi fiy nekk di faj bu dikkee danañ fi fekk lañ fi war a fekk ci ay garab loolu nag taxawaay bu rafet la boo xam ne laaj na ñu xamal la ko ba nga xam ne ñu ngi taxaw taxawaay bu mel noonu naka noonu docteur Serigne Abdou Lahad fay ak Serigne Abdou Aziz Thiombane pharmacien ñoom ñoo coordonné liggéey boobu ak docteur Ali Guèye ak waa TAM ci njiitul docteur euh, Abdoulaye Sare ñooñu daal Serigne bi seen taxawaay ci liggéey bi rafet na lool ba rafetaay mënu koo feeti kaw waaye nag loolu lépp soxna Ndeye Maguette Diop mi nga xam ne moo ko coordonné moo ko moo ko jiite. ci biir cant yi itam ñu lay seereel cant gu ñu sant soxna baa Bali Muntaxa moom it ku jàpp ci liggéey bi la koo xam ne euh, cant gi war ci moom sax noonu lott nañ ci waaye dañuy ñaan nga jot leen nu ko yow ngir mu gën a mën a jot. ndax taxawu na mbooloo bi lool taxawu na daayira bi lool waaye taxawu na itam daayira yi nga xam ne ñooy liggéeyal Serigne Touba ci barab bi dara am fekkewu ko lépp lu lépp lu mu war a def ci barab bi rek ci ay taxawaay def na ko kon nag nga sant nga jottali ko suñuy cant bu baax a baax a baax ak suñuy ngërëm ak suñuy ñaan ne ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom guddal aw fanam te may ko wér te yokk ay xéewalam ci biir bi ñuy léew léegi dañoo fàtte woon daayira xidmatul rawdu ci njiitul sëriñ Daouda Diop waaye ñu lay seereele Balla Diouf euh, cant gu ñu sant policiers yi nga xam ne ñoom lañu ñu fii ci barab bi nañu ko sàkkoo woon ca ndaje ye waxoon leen ne nañu tànn nit ñoo xam ne ñu mën a jaxasoog nit ñi lañuy doon ñu am expérience la ñuy doon ndax barab bi xër moo ñi fi ñëw ñëpp xër leen fi andi ak yittewoo goo xam ne dootuñu gis dara noonu lañ ñu ko tànnale ñi fi ñëw ñëpp ñi leen jiite ànd nañoo ko yar an nañu ko teggin dégg nañu itam nit ñi fi ñu toll ak seenu xër ba dañuy jàppalante ak ñoom liggéey seenu liggéey nam mu waaye nag ñu def ko ci ak dal def ko ci ab yar def ko ci ay teggin loolu it sëriñ bi ñu ngi la koy seereel seen kilifa nuyu na la fii léegi. naka noonu waa sapor sapor ñoom it ni ñu ko baaxoo defee ajjuma yeeg lépp dañuy ñëw fi liggéey liggéey bu am solo ren ji ni barab bi meloon rawatina démb ci ajjuma ji liggéey nañ fi liggéey yu am solo yoo xam ne ñu ngi la koy seereel ñoom itam ngir seeni cant rëy na lool ndax seen taxawaay moo ni toll. naka noonu waa Croix-Rouge ñoom itam def nañ fi liggéey bu am am bu am amam solo li ko waral nag mooy barab bi day barab boo xam ne ñëpp fi lañ jëm si. te kenn ku nekk buy ñëw ak xër lay àndaale moo tax jafe-jafe yi day bari lool ci wàllu wér-gu-yaram ñii nga xam ne ñoo yore wàllu wér-gu-yaram faw bu ñu ànd xol bu yaatu rek liggéey bi dana sooxe waaye ñoom ñëpp rek def nañ ko ci xel mu dal ak lu yaatu ñu lay xamal ne liñ fi faj ren ëpp na junniy nit yoo xam ne seet nañ leen ci biir fajukaay bi loolu mooy li nga liggéey yi nga xam ne mbooloo mi taxawe nañ ko yëpp ñoo doon taxawu siyaara yi ñoo doon taxawu nit ñi ñoo doon taxawu itam barab bi ñoo doon seetal itam barab bi bis bu yàlla sàkk amul benn bis boo xam ne sëtaluñ li biir jumaa ji sëtaluñ li penc bi lépp ak li muy xat xat xat danañ fexe ba lépp ñu bale ko ba mu set raxas ko ba mu set te du am benn jafe-jafe euh, loolu mbooloo mii nga gis ci sa kanam ñooy ñi ko def di ay góor ak ay jigéen am na ci ñoo xam ne it féete woo woon waañ wi di togg di toppatoo nit ñi di tàngal kafe yi di def yee ñu war a def yépp kon dal ci tënk mooy bépp liggéey boo xam ne ñi ngi koy def mu jëm ci màggal gi rek mbooloo mii liggéey nañ ko fii ci barabu Cheikhul Khadim bi ci jumaay Serigne Touba ji ñu di la ko seeral nag di la jébbal seenub liggéey di ko teg sa loxo nga tegal nu ko ci loxoy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy moo fi nekkal Khadimu Rasul. kon nag sëriñ bi ci ngir bañ a guddal loolu mooy tënk bu gàtt ci lu yaatu ci liggéey bi waxtu wi daaw nag dañ fee toogoon waxoon la sunu bëgg-bëgg ak sunu yéene ci liggéey bi. yàlla dogal nga doxee ca doxin woo xam ne doxin wu rafet la waaye doxin woowu it soññi taaliba yëpp ba ñu doxee ci doxin wu mat sëkk waxtu wi daaw dañ daa fekk ñu andi woon fi ay tapis yu yaatu ñu soxla woon tapis yooyu lu ko mën a setal ci ay machine nga soññee ca soññee boo xam ne soñ mooy soññee bi gën a gaaw te mooy da nga caa jiital sa loxo njëkk a jënd ay machines yi nga xam ne moom la ñu war a liggéey loolee ba ko taalibe yi gisee mu jàjj leen lool soññi leen ba fi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi li fi nekk ci ay machine fa tabaarakallaahu yaakaar nañ ni jamono yi ñu toll moom doyeen dina sëkk la ca des nag mooy rek di sant di gërëm ca la weesu di wax ne ren nag jafe-jafe bi ñu gën a am ci ñaar yi nga xam ne ñoom lañu sëriñ bi dénk muy jumaa ji ak barab yi mooy ndox loolu nag ku ne war na koo xam ndax kër yi sax dañoo manqué woon ndox ndax ni màggal toll te xëy na neexul a fàggul ndox waaye bu ñu sañoon ren sunu li ñuy njëkk a ñaan mooy waxtu wii déwén bu ñu fi teewee ñu am sunu oto bopp boo xam ne mooy duyu ndox di ko andi ci ci jumaa ji ak ca armeel ñaar yëpp bu ñu mënee am ñaari ñaari oto yooyu loolu mooy suñu yéene ndax barab bi barab bum ndox la te dafa laaj ndox muy baree baree baree bare mënut a ñàkk ndox njàpp meeg raxas beeg faj meeg yëpp dara mënu cay ñàkkum ndox kon su manqué ndox rek day indi jafe-jafe te ndoxum màggal xam nañ ne mënta yéeg ci ci mënta jaare ci tewo yi ba ñëw lu doy te luñ fu mën a dencit balaa am juróomi waxtu juróom benn waxtu loola jeex nga xam ne ñaari réservoir yu mag yoo xam ne bu ci nekk ëpp na 10 000 ci ñaar ci sooroor yi ak yi nga xam ne ñu ngi ci suuf ñu di leen duy waaye nag taxul ndox mi mën a doy teewul jànkonte nañu ay coono yoo xam ne ren ji ñaan nañu nga ñaanal ñu ci barke Cheikhul Khadim waxtu wi dewen buñ fi teewee moom buñ jàmbatati otom ndox na fekk ñu am ko fii am ko ca barab ya barab yi it toll na ci ay diggante yoo xam ne doy na war lool ngir ñàkkum ndox mu metti te nit ñi andi seeni i néew ñu war leen a waajal lu ne jànkonte nañ ci ak moom loolu nag sëriñ bi ñi ngi ñaan nga ñu taxawoo woon ci ak ñaan ko soññee ba loola ñu génn ci ren jiit nga taxawal noonu ci ay ñaan ak i soññee ba ñu génn ci jafe boobu soxla yi nag yitte yi yitte nag wax nañ ne su su dee su su suñ bëggee mu gaaw faju day doon jenn di jam jumaa ji nag mënut a doon jenn waaye mën naa am ju gën a far jii nag mooy ji ñu gën ji ci gën a far te teew ji xëy na am na yeneen yu ñu soxla yoo xam ne ay nu am na ay bokki taalibe yoo xam ne diggée nañ ci ne danañ ko indi ndax ñoom ñii di faj soxla nañu ab ambulance boo xam ne mooy évacuer nit ñi donte amoon nañ ci sax yoo xam ne dañ ko affecté waaye xam nañ ne district bi lañu ñu am ci ay ay ambulance mënut a an mënuñu ko doyu leen sax ci biir màggal bu ñu fa affecté yenn mu di fi taxaw dana gën a manquil seen effectif loolu bokk na ci li nga xam ne yu ñu sàkku la kon daal sëriñ bi ci tënk loolu moom daf mel ne waxoon nañ ko fi daaw mooy oto bi nga xam ne mooy jël mbalit ñi di ko yóbbu donte nag ñu ngi lay seereel cant waa cant ko ñuy sant waa ICG waa ICG moom wax dëgg yàlla taxawaay yu am solo la ñuy taxaw ci màggal bi ku jaar fii gis nga seen poubelle yi ni ko fi tege woon di ko roñ di ko yóbbu waaye ñoom taxawaay yu mat sëkk lañu ñu taxaw rafetlu nañ seen taxawaay lool waaye nag ñu lay jàppale waxtu ne nga fexe ba am loo sa yëfi bopp daf koo gën kon nag nañ ñu di loolu it bokk na ci yitte yi nga xam ne ittewoo nañ ko kon daal sëriñ bi ci tënk Euh, maa ngi tënk foofu kàddu yi nga xam ne moom lañ ma yónni woon di la wax ne ñett yii moom yitte la lool ci daayira bi benn bi mooy ñaari oto yu ndox yoo xam ne benn bi ngir armeel yi lay doon benn bi ngir jumaa ji lay doon beneen bi ci des mooy oto mbalit boo xam ne li ñuy ton ni dañ koy jëpp ci oto yoo xam ne ñoo ko moom moomal suñu bopp donte nag ñu ngi ciy dimbale ndimbal la lu mat sëkk seen taxawaay mat na sëkk rafet na lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax ambulance Eh, yóbbu ñu wéradi ñi it boobu it ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax loolu daal mooy mooy yi nga xam ne mooy moom lañu tënkoon ren ngir jot la ko di la sant bu baax di la gërëm bu baax ci ne nga nu taxawoo ci liggéey bi mosoo ñoo seetaan benn yoon waxtu bu ne yaa ngi jàppale rawatina ci màggal gi xam nga liggéeyu màggal gi ni mu diisee ci jumaa gi tax na lépp looy def mën nañoo wax ne suñ ko sañoon wax dañuy wax ne ñun nga jiital ci liggéey bi loolu yëg nañ ko gis nañ ko rafetlu nañ ko ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm bu baax te di la ñaanal ni ñu ko tàmbalee woon foofu rek la ñuy daanee la mooy ñaan Sëriñ Tuubaa yokkal la ko yokkal la say ndam bàyyi la fi nag lu yàgg yàgg yàgg yàgg wéeral sa sa jëmm wéeral sam xel ba nga mën a àggale Sëriñ Tuubaa bi fi ko say bokk yaakaare ba teg la ko ci teg ko say loxo mbooleem taalibe yi itam yaakaare ko noonu yaakaar jooju yàlla nañ ci suñu borom rus yàlla nañu suñu borom rus ci sa jëmm ji yàggal ko fi yàggal la fi lool may la wér li sa yéene ba lépp sotti ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi xam naa suñu wax du ciy gudd ndax xam nañ ne waxtu wi xat na waa waaye rek dañ fàkk ñu ñu sant sant rek sant la ndax li ñu def lépp yaa ñu ko gën a xam ndax biñ ko biñ ko bëggee ba am digal si Amadou Mountakha ci yow la ñëw wax liñ bëgg nga defal defal ñu ci lu koy njortu. ndax bi nga xamee ne euh, mbootaay yi nga xam ne dañuy faral di bind ci Serigne Touba di bind ci yoonu Mouride tuddee seen bopp association des écrivains de la Mouridia euh, gis nañ ne dañoo bëggoon a taxawal lu mel ne aw euh, gaaral ñu ñu mën ko tuddee foire ca ca Masaalikul Jinaan ak lu mel ne expo exposition boo xam dañ ciy wane téere yi nga xam ne ay jamono at yu mujj yi ñu ngi koy bindi Serigne Touba di ko bindi ci yoonu Mouride gaaral ko ba nit ñi man koo xam man cee jariñu Euh, bi ñëwee ci yow dañoo xamal ne loolu bokk na ci euh, dafa war a bokk ci liggéey liggéey liggéeyu màggal gi waaye li ñu ci doon tiit di ko ci euh, mu doon suñu jaaxale muy fuñ ko fuñ ko mën defee ci ci fu sës ci jumaa ji ak ca Masaalik lépp dañoo daal di booleeg daayira bi di Moukhaddamatoul Khidma ñu yaatal ñu loolu ñoom itam wax ko Ndakaaru ca waa Masaalik ñoom itam ñu yaatal ñu def ko fa nam gën a rafete nam gën a mate kon euh, cant googu rek cant cant googu la ñuy def di la sant ah di ñaan tam waxtu ñu ko fekkee tee rek ñu ñu di ñaan ñu booleel ñu ko ci ci liggéey liggéey bi waaw waaw ñu ngi lay sant bu baax na di la ñaaral yàlla wéral la te te yàggal la fi ba liggéey bi nga bëgg liggéeyal seen tubaab yëpp nga àggale ko bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi nuyu bokki fi teew yëpp di ci jiital sëriñ bi li wane ne raw Rawdu Rayaahiin dafa àndoon ci liggéey bi ñu doon def fii te liggéey boo am solo ni ko sëriñ Cheikh waxe ndax li ñuy bind ci sëñ bi dana am ñu koy yëg di ko mën a fàggu ba ci mën a jariñu waaye dana am ñu bari ñoo xam ne mën nañ ko bañ a yëg lu mel nii nag day tax ba yegg gi gëna yaatu bu yegg gi gëna yaatu nit ñi di mëna am mbind yoyu di ko mëna jang di ci mëna jarignu motax moo ko yëgalee sàkku nu and ci dañ ci sawar lool ba yi nu jotoon ci ay téré te yi ci ëpp di lu señ bi bindal bopam am ci yoy dañ ko bind ci señ bi nu andi yooye yépp ma bokk ci liggéey bi noo ngi sant nag ñi na ko seqaloon ndax ànd nañ ko ci ànd bu rafet di sant itam ñi ko jàpp ndal ñi ko jàpp ndalal ci anam gu manti doon ku ci jàpp daal lu mu néew néew noo ngi koy sant sëriñ Ahmad Badawi xam ngeen ne moo jiitu Rawdu Rayaahiin moo ko jiite waaye dafa am ngàntul teew moo tax nu teewal ko am na ñu ma àndal sax waaye dañoo jàppoon ne ci kanam lay doon moo tax ñu am fuñ jaar man nag ma jiitu leen waaye sëñ Mbàkke Abdourahman ak sëñ Mor Bousso maak ñoo ma ànd dañoo jaar ci kër ga ndax jàppoon ne ci kanam lay doon kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp wa salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. ñi nga xam ne moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma ak mboolem ñi mu ci ànd ak ñëpp nag. di leen sant bu baax ci turu sëñ bi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jiite ni ma ko daa waxee rek yàlla def na yéen am tawféex yi sëriñ bi jeglee na barab bii nga xam ne mooy fi ko gën a ñor yàlla def na barab bi mu dëkk wal tuti lii thamma iskaana rabbi stajib wal tukammil maana way tuddaan tuuba liggéey tuuba lati fii ka tunda fii ka bunyaana kon sëñ bi fii mooy dëkkuwaayam bi nga xam ne tudd na ko ci xasida yi lu bari te kenn séentuwu ko nii kon bu yàlla defee ngeen am itam am taw féexi ci borom tànn leen. cëy sëñ Tuubaa cëy sëñ Tuubaa cëy sëñ Tuubaa koy liggéeyal fii dara jiitu ko ci liggéey bi kon nag bu leen yàlla defalee ndimbal ak taw féex ngeen la laxasaayu dëddu àdduna sànni lépp jël seen lépp jox ko sëñ bi soxlaatu leen dara te xoolu leen dara lu may ngërëmu sëñ bi loolu sëñ bi da leen ci sant leen ci gërëm te yàlla dafa defit seen posté ak seen taxawaay bi mu xam ko ànd ko yéen lu yàgg te nekkawul sëriñ Tuubaa bu nekkee sëriñ Tuubaa itam fu ko fekkoon rek mu gën koo yëkkati gën leen a jàpp lépp lu muy defit woo leen bëgg ñëw mu ànd ko yéen loolee nag seen taxawaay tax ndax ba ngeen tam leen liggéey ba nga ni liy firndeel ne sëriñ bi nangu na ko mooy mosu leen ci def lenn loo xam ne kenn rafetlu ko wala ko xam rafetlu ko kon nag yàlla na liggéey bi yàgg ci seen loxo ndam li ngeen ci am ngeen am ci ndam ko fuuf ci seen kanam ngeen def ci màggal gi mooy dalal gan ñi teertu leen dalal leen taxaw leen ba liggéey bi jeex loolu dooy ne sëkk am liggéey ñaan boole ci jumaa ji muy ñaari liggéey bi si yoon neexutu boole waaye lépp seen principe ak seen taxawaay mooy na ko béy kon ñu ngi ñaan ci parce que suñu tubaab mu gën ko nangu te liggéey bi gën di ak seen di gërëm it ñi ngeen àndoon bi di sëriñ Cheikh Mbacke bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ko yéene bu baax itam di ko ànd ak yéen ndax loolu de xalaat yu am solo la xam naa jotaay bi xat sax kon ma jaaraat ci la waxoon waaye dañ koy rafetlu ci ànd gi ñu ko ànd yéen ndax liggéey bi gënul lii kon ñu ñaan yéen itam ak ñu ko àndal yéen a jën ci am yàlla déglu leen ci ci suñu Tuubaa di gërëm baa daayira Rawdu Rayaahiin ci njëtal sëriñ Ahmadou Badawi waaye ci teewaayu sëriñ Cheikhouna ba Abdou Wadoud mi ne moo ci seen tur te ñoom itam ngeen àndal ko ñu liggéey ba ba tey jii di bisu tàggatoo bi kon ñaan ci barke suñu Tuubaa nit ñi fi teewee ren ñu teew fi na ngeen كان بيني ما فيتي يفوا عندارو يلا فتو جانغو يفوا عندارو سنجو سافر يتي يي سيف ده هاد واحد يجي تم بيجي نجوبا فمن أقوله سو نيت كم نيت تقدر نجيب وقتو وفاي كم خال مين كم أنا تخو بلب سطو بنير لو بيجي أنا لو كمان ده فكر نيوري جيت بسهل يجي تي وإن شاء الله نيرو بيجي نجوبا إن شاء الله مم سافر إن شاء الله kon ñu ngi jaaxal foofu kàddu yi balaa suñu àdduna sonn ndax ma bi di ko fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nag yi nga xam ne ñoo ci biir dëkk bi ak ñeneen ci biir dëkk te ñëpp ànd ak yéen liggéey ci soññ ñoom itam posture bu ñu ñu fexe ba yow. cëy sëñ Tuubaa cëy sëñ Tuubaa cëy sëñ Tuubaa lu wàcc kenn te war na ñëpp donc yaa defal tawfeex nga liggéey sëriñ ji war nga saa gën góor te fabal sañam joxe te xiif te bàyyi sablal tëdd suuf summi sa dàll dox fi suuf ndegam dangay wutug ta suuf fabal sañam joxe te xiif te bàyyi sablal tëdd suuf summi sa dàll dox fi suuf ndegam dangay wutug ta lekk ba sab kolluy saxar. nga tëdd cib lal ba fajar jóg di soli dal la këwër lii kay du yoonu waata suuf murit bu ab kollam ni muut na jàpp boppam te ni muut ngir gone rekk la gu te gone guy